li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaasal minan tey ci euh, Poroxaan ngir euh, màggalu na Jaara gi dañ ñëwaal tamit fii ci euh, bas bi nga xamante ne bii fa sëriñ sëriñ Bassirou yi di organisé njàngum xasida nga teewoon fi li bëggoon Mbàkke nga ay kàddu yoo xamante ne bii da ko mën a mottali mbokk yi rek. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu lay delloo am nuyoo ñu nuyu yëpp. ak sunu bokki bopp yi di am mbégte ci teewe bis bu mel nii ndax bis la bopp teewe ko jar na lu ne te ndimbalul laa koy tax a def ndax dëkk bi ñi fi ne bari na lool waaye ñi fi teew bariwut lépp loo gis nag teewee ko yombul rek taw feexi sunu borom daf caa laxasu te fépp fu ñuy daje di jàng xasida sëñ Tuubaa fala fa la njëriñu yonente bi di wàcc bi dafa masa toog mag ñi di jàng muxaddamaatul am daa bes ci yebbu sumti daahi jumlatan haasaha nabi minan nafi wa huwa al-bahru sul jalbi wa nafi mu ne leen njëriñu yonente bi day bu dee fukk benn bi la yàlla jox yahood yi ak nasaraan yi ñu beew ba di ko pasar pasare waaye juróom-ñeent yëpp ma nga ca mbaggam ya ne leen xam ngeen lu ko fa mën a jëlee ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne fu ñuy jàngee sama xasida ngeen nu muy mela ñu ne ko bëgg nañ mu ne dafay mel ne géem gu ñor ba suñ ko gësamee mu wadd suñ ko gësamul mu wadd fonkal ma gën a am lof nag jàpp ca dàtt ba di gësam sëñ Matar Penda Dieng ne ko Mbàkke kon ndaw rutu rutu waaw nag ba mu koy wax ñu bokk ci ñoo moom ñu yëkkati xasida sëñ Tuubaa boobu amutoon kon nag buñ demee ba ay sëtam yoo xam ne ñu ko jege ci pas-pas ak ci deret ndax nituk yàlla ku ne ñaari xeeti doom lay am wala dul xaal wala du sël wala dul xaal mooy doomi doomi aal doomi pas-pas mooy doonu mbóot wala du sol mooy doomi ndigg mu ne mooy dollu alal jëm fi baax ñoom nag ñu am ci cër ñaari cër yooyu yëpp borom seen yitt yëpp jëm ci dundal li fi seen maam bàyyi woon rawatina liggéeyub sëñ Tuubaa bi nga xam ne wax na ne mooy karaamam te karaama mooy li yàlla dëgërale nit ku nitam bu dee ci ab yonente dañ koy tuddee mu'jiza bu dul ci ab yonente nag karaama lay tudd waaye teraanga lay doon joo xam ne képp ku jóg jëm ci boromam te bolewu ca dara moom la la yàllay terale wane ko nit ñi ñi ko defutit ne ci la leen di wane ne kii sama nit la maa ko dëgëral sëñ bi nag nee na xasida yi mooy karaama kon nag buñ demee baa njabootam euh, am ci passeport bi ñu ci am jëmee ci ni ñu ci jëmee loolu mën naa dal xelum képp ku xam dara kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax ci teewe gi ñu ko teewee te di leen ñaanal ñu ànd ci seen tawféexi maam ak ngërëmam di di di di ci yeesalaat nag sunu pas-pas te képp koo xam ne sañ nañ la koy digal ñu la koy digal ñu ñaanal Seex Muntaxa mu yàgg fi ndax ak yàggam fi njariñul nit ñëpp la rawatina jullit yi waaye rawatina taalibe Sëñ Tuubaa ndax naka jëkk daloon na xel ñëpp te boobu ay kilifa ma nga fa woon bi ba yëlif lépp it wane gën naa dalate xel li ma ko waxoon benn bis nee naa ko ab xontu na ci murid yi ab xontu nag soxla nañ ci lépp am des ñaar muy manqué ak jeex manqué mooy ñàkk wér jeex mooy ñàkk fee yàgg loolu ñu ngi ñaan sunu borom tin ñu ci ci barke mbootum xasida yi sëñ Tuubaa yi nga xam ne lu ñu ci ñaan sunu borom mu defal nu ko ñu ñaan mu yàgg fi lool te a ko wér liggéey bi mu yéenee liggéeyal sëñ Tuubaa mbaa nga ci fu kawe njortul ñëpp te na ànd koog moom jërëjëf ñu ngi sant bu baax tey gërëm asalaam li sadinatan bi kun